jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu ci bëccëg jot na sënkam li gën a fës euh, ci xibaar yi la ñu doon tiit nag yegg si na Sénégal muy variant bu yees boobu ñeel coronavirus euh, ca Britannique mu fekk fa baax ñu gën ko xam ci SARS-CoV-2 kon yegg si na Sénégal euh, ki ko dëggal nag di professeur Souleymane Mboup jiite centre boobu di IRSF la mu xamle nag gannaaw ay échantillon yu ñu boole woon nag yu baree bari bi ñaareelu wàgg bi tàmbalee ci Sénégal. Sénégal nag ci la ñu nemmeeku euh, benn variant nag muy variant britannique boobu nga xamante ne wàllante gi euh, dafa gaaw di ngeen déglu professeur Souleymane Mboup euh, ci biir xibaar yi tolluwaay mbas mi ci réew mi tey nag ñu ngi toll ci kon ñetti téeméeri cas ak ñeent yoo xamante ne am nañu ko ci ñaari junni ak yu tegal ci test yu ñu def ñaari téeméer ci cas communautaire la ñu am téeméer ak ñeent ci cas contact fukk ak ñett ñàkk nañu seen bakkan beneen ponk ci xibaar yi Descox rek nee na lépp nag ngir mën a aar nag yenn ci euh, suuf si ndax gis nañu ni léeg-léeg jafe-jafe dafay am suufu jàmbur dañu koy teg loxo moo waral nag des kos wàcc euh, ci terrain bi gendarmerie nag daal di koy gunge euh, fële ca commune bu Bambilor yeggoon nañu foofee gannaaw ay weer ñu doon def enquête bi tey mujj nañoo teg loxo ñaari ndaw yu ñu njoxt ni seen loxo génnul ca la xewoon ca Denver ci États-Unis muy lakk gu metti goo nga xamante ni nag njaboot faatu nañu ci Euh, muy njaboot goo xamante ne nii fii la ñu fekk baax euh, ci euh, Sénégal ñoom ñaar ñooñu nag police moo leen teg ab loxo moo leen teg loxo ay ndaw lañu nag ndax kenn ki mi ngi toll ci fukki at ak juróom-benn keneen ki mi ngi toll ci fukki at ak juróom gannaaw enquête bi nga xamante ne def nañu ko police bu États-Unis doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi mbokk yi lii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéene yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu fam fàcc xibaar yi. dalee na jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi niñ ko waxee woon ci ndoxte li leen ñu doon tiit nag yegg si na Sénégal SARS-CoV-2 euh, muy nag variant bu yees boobu fekk baax ci britannique wàllante gi gaaw lool boobu nag ni nag ñu ne Sénégal muccoon na ci waay tey euh, gannaaw nag ab euh, ay échantillon yu bari yoo xamante ne dañu ko boole bi ñaareelu vague bi tàmbalee ci réewum Sénégal loolee tax na tey ba ñu daal ci nemmeeku nag benn variant ki ko xamle di professeur Souleymane Mboup jiite IRESSEF moom nag ci kàddoom tey tey euh, ca point de presse bi ñu doon amal fële ca ministère de la santé muy point du jour bi sax laay wax mu ngi ci ñaax askanu Sénégal nga la nanu gën a def ndànk te xam ne lii du ay caaxaan professeur Souleymane Mboup si dañu am loo xam ne dañuy wax ni dañuy def mutation loolu daf lay tax ñuy dund dafay tax aussi ñu mën a adapté ci nit ñi ak ci lu bari lu ñuy fu ñuy nekk variant sud africain bi moom gis nañ ni moom tamit walaate bi dafa gaaw léegi gis nañ ko ci fanweeri dëkk ak benn mu ware ni depuis le 19 janvier am na juróom-ñetti dëkk yeneen yoo xam ne gisaat nañ ko fa par rapport ak 19 euh, janvier bi mujj bi mooy li ñuy wax variant brésilien bi boobu moom ci depuis le 19 janvier gis nañ ko ci juróom-benn dëkk donc au total mi ngi ci juróom-ñetti dëkk looloo tax ñun IRESSEF ak ñi ñuy liggéeyal suñu partenaire yi nekk MRC bu London School bu bi ñuy continuer di def surveillance pour seet ndax variant yooyu am na fi biñ ko jëkkee xool série biñ jëkk a def gisuñu ci woon variant yooyu moom lañ waxoon semaine ba semaine yële passé mais démb ci série bi ñu def dañ fa gis variant britannique boobu ci échantillon yi nga xam ni mooy yi ci topp mooy deuxième série bi comme variant yooyu walaate bi dafa gaaw trop lépp luñ doon def mangook euh, muy rek ñaax euh, kon euh, sénégale yi ñu def seen kémt lay kàttan muy nag geste barrière yooyu ñu ñuy wax nag ngir mën a fegu ci mbas mi nañu ko gën a dooleel ndax variant bi bokkul ak yi weesu variant bu metti la wàllante gi dafa gaaw muy professeur Souleymane Mboup tey nag lu toll ci ñetti téeméer ak ñeent ci cas la ñu wàññi ñeel jàngoro ji ci ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróom ñaari test yoo xamante ne def nañu ko wàllante googu ñu xamul nag muy cas communautaire ya ñaari téeméer lañu ci am tey euh, contact ya muy ñi nga xamante ne dañoo jege ñi am doomu jàngoro ji euh, toll nañu ci téeméer ak euh, ñeenti fukk ak ñett ñàkk nañu seen bakkan ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ñoo ci génn àdduna juróom fukk ak ñett nag fi mu ne ñi ngi feebar ba sonn lool nekk réanimation ñu des ba tey ci euh, jàngoro ji euh, yegg ba fële ca diwaanu Kaolack Kaolack it ña ngay yuuxu ndax jàngoro ji ma ngay gën a euh, law foofee lu toll ci juróom-ñeenti téeméer ci cas la waññi wàññi fi mu ne nii moo waral nag gouverneur ba daal di rek jattu ne askan wi nag dootu leen may dara faw nag ñu topp diggéey lu ko may dana am nag lu dal ci seen kaw lu ci mel ni wàlluk ya foofu nag dañuy daal di jël ay matuwaay di ko wutal waxtu ñu koy tijji ak yu ñu koy tëj nañu ko defee woon rek ca vague bu njëkk ba Ibrahima Diamé lu jege juróom téeméeri cas lu ëpp juróom-ñaar fukk ci seen biir ñàkk ci seen bakkan li wane ne kon feebar bi mu ngi continuer di law di dem di def dégâts ci biir diwaanu Kaolack gouverneur de région Alioune Badara Mbengue di président comité régional de gestion des épidémies nag nekkaful réewul pare kon pour jël dogal yu am solo. affaire bi ku mu merloo wala wala ku jaaxlewul yaakaar naa war nga xoolaat sa bopp ñun war na ci mer ñun war na ci jaaxle. parce que actuellement léegi tey léegi tey ñu jëm ci junne yi cas ah secteur boo xalaat rek affaire bi laal na léegi nag wax dëgg yàlla dafa jot nag pour nit ñi xuppi seeni bët pour xool ne mbir mi am na foo bu fa xasee ba toll fa nag. ah dana ëpp ay loxo. bokk na ci kon opération de désencombrement ci marché yi ak ci yeneen bërëb yu mel ni gare routière waaye itam pare pour jëlaat yeneen mesure di tëj marché bi ci yenn waxtu yi. ñu ko naa sax jël ay mesures mais mesures yi dinañ ko gën a corser su fekkee ne affaire bi dakul li ñu koy forcer mooy bés bu décidé dinaa leen woo. wax ak ñun ban heure la ñu tëj marché bi. comme niñ ko defee woon nag ci première vague ba mu mel ni bonne volonté jógaat nañu ngir andi seen contribution ci xeex bile waa Cœur de Ville andi seen dotation bu am solo. tey nag dañ fi ñëw ñu indi fi dix mille masques. andi fi tamit ay solution alcoolique yoo xam ne président Serigne ci boppam moo ko produire woon ànd ci ak euh, les étudiants pharmaciens yi nekk à Dakar à l'université de Dakar Euh, mu euh, investir ci valeur quand même huit millions euh, ñu am ci lu tolloog ay six mille litres loo xam ne mën na couvrir lu mot cent mille personnes pendant pendant pendant dix jours. ci yeneen mesures yi ba tey gouverneur di woo askan wi ñu ànd ak seen responsabilité xamal leen itam lépp luy cérémonie familiale yu nga xamante ne day dajale mbooloo dana ko tere. ma ngoog ñu koy jaajëfal Ibrahima Diame delsi ci Ndakaaru yegg ba ci banlieue bi euh, foofe nag service di d'hygiène ña ngay wax ni ñoom jafe-jafe yi ñu am daal mooy jéem a fexe rek euh, kon ba seetal marché yi loole nag euh, ci bisu dibeer yi waaye loolu dafa mel ni yombu leen du tee nag ci seen wàll ñu ngay def seen kéemtalaay kattan di set setal nag ngir rek askan wi mën a mucc ci mbas mi yeggoon nañu ba fële ca yëmbal ndoor Habib fay ak Modou Diop ñoo ñu toogal ci banlieue bu Ndakaaru benn microbe bëggatuñu ko gis ci biir kër yi loolee di xeex bu service national de l'hygiène door fii ci diwaanu banlieue bi faaw rek nga am ndoxu eau de ngir kër gi yépp mën a set ñu mën a xeex li nga xam ne moo di coronavirus bii di reyee ñooy dimbali fajkat yi pour que désinfection yii nuy wax ñu mën koo appliquer ba foofu ba ñi ñi ñiy faj sax feebar bi du leen wàll kii def loolu nag defe naa ne li njëkk mooy moom ñu former ko donc pour dalal xeel ne ñooñu moom am nañ formation bu doy ñi ngi dem ci kër yëpp te loolu day montré rek ne nit ñi bu ñu farataalee mesures yi ñu joxe mën nañ cee ndax ñun suñu agent yi dañuy dem fu fure mais amul kenn ko ci daanu feebar. lay ëllëb seeni xel rek ñoom bàjjenu gox yi moo di ñàkk a respecté gañ dul désinfecté lii di marché yi bu dimanche jotee. yi dañuy tëj marché dimanche dañu war a raxas marché bi kenn yeewul jaay ma dem di contrôler gisuma benn agence bu fa taxaw di raxas loolu tamit erreur la te waruñu koon def. lu weesu juróom benn fukk ci ay ndaw service d'hygiène ñoom ñoo ñu ñëpp dajale nañ leen ci diwaanu Yeumbeul noor ngir ñu def bi léegi opération waaye lii di planification bi la ñuy topp. plan nag boo ko waxee mooy tey damay def lii bu subaa ma def lii ginnaaw suba ma def lii looloo tax amul benn service boo planning dafa am looloo tax léeg-léeg mënuñu noo gis ci marché yëpp. ndax marché bi nit dem te fekkul ñu planifier ko booba bis boo fa demee doo fekk service d'hygiène ku ci nekk mën nga aar sa bopp ci doomu jàngoro gii di coronavirus loolee di xalaatu ka ñu dénk brigade régional bu service d'hygiène euh, waral na itam muy woo askan wi ñëpp ku ci nekk nga sàllug digle yi ak it tere yi ñu lay jaajëfal bu baax a baax Habib Faye du Mbeng ñu gën ko xam euh, ci Baye Diop moom nag euh, moo wuutu fi mu ne nii Euh, ka nekkoon maire bu Dalifort euh, ca euh, fauteuilam muy commune bu Dalifort daal nañ koy nag samp gannaaw ab conseil municipal boo xamante ne amaloon nañu ko Mamadou Meng nag ma koy gën di fàttali Baye Diop ca lañ ko gën a xamee moo wutu Idrissa Diallo mi nga xamante ne nii moom moo dëdd woon àdduna juróomi fan ci weeru janvier atum 2021 ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel yi Descos nag door na ay opération ngir nag mën a fexe rek. askan wi ñenn ñi jafe-jafe yi nga xamante ne dañu koy am ah, ci wàllu ko suuf ndax léeg-léeg ñu jël suuf suñu moomul teg loxo moo waral nag des DSCOS wàcc ci mbedd mi di def ay ah, opération gendarmerie nag ah, moom it ma nga woon ca commune bu Bambilor commune bu bambiloor boobu nag gis nañu ne sit ba nag tabax ga léeg-léeg dafa daal di jéggi dañu dem sax ba laal yoo xamante ne waruñu ko laal loolu nag ñu ne teguñu ko ci yoon teg nañ ca nag kenn kooku nee nañ amul ca sañ dañu ci ànd ak Mamadou Fall. mu mel ni guerre ba door na soldats kon song nañu mbooleem nit yoo xamante ni rek dañoo teg loxo ci ay suuf yu jaarul ci yoon fii ci Bambilor dindi kon borne yi nga xamante ni dañ koo def ci lu ajuut yoon. gis nañ ne lotissement bi jaarul si ñun donc amul autorisation donc li ñuy njëkk a def mooy ñu dindi ko balaa muy jur eh, njaayum parcelle. Euh, wala ay tabax yoo xam ne day jur comme lii ñu jural euh, Thiès ci Mbourkat te loolu la ñuy daw. agent wu des ko si bëggatuñu citoyen yi ñu daal di leen càcc ci mbirum suuf daanaka sax fii ci Bambilor teg nañ ci loxo waaj yi. waa Descos kon lu ñu bëgg moo di yëgal askan wi ngir ñu bañ a rek dugg ci lu leerul waaye itam. bëgguñu jàll ci ultime étape yi. teelu woon jóg comme nii li mu naroon jur mooy suñu mbokk yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew te ñoom léeg-léeg ci internet bi lu leen nit ñi di naxee di leen jaay ay terrain yoo xam ne xëy na du ñu xam li ci lalu yëpp. Euh, lii nag non seulement pour ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk ci diaspora bi mais nag ñi nekk ci Sénégal aussi te nga xam ne xamuñu wàllum jënd parcelle wala tabax lan moo ci lalu. le fait que ñun ñuy def ay ronde bu ñu gisee lu mel nii ñu gaaw koo fànq balaa muy jur ay jéyee yoo xam ne dañuy toj këru nit wala di ci jàpp nit parce que loolu gën a luñu. gendarme yi nga xam te ni ñoom lañ dénk ñuy saytu wàllu suuf gi ñoom nag ñu wër Sénégal gépp ngir mën a moytu rek yenn yi nga xam te ni ñu ngi ko nemmeek rawatina yëgal nit ñi laataa ñu yegg ci toj. Mamadou Fall euh, juróomi euh, junni ci logement euh, branchement sociaux ña ngi koy wax fale ca diwaanu Fatick lañ ci jublu nag mooy fexe ba ñenn ci askan wa daal mën a jote ci ndox mu sell ndax loolu dafa yàgg doon kon seen i jafe-jafe ñu ne nag am na ay comité yoo xamante ne di kuréel dana ko samp sax kuréel yooyu nag dafay gën a saytu xool njaboot gi ko gën a soxla ñu njëkk leen koo jox rawatina ak njaboot gi nga xamante ne seen loxo jotul seen gannaaw office des forages ruraux moom nag bu weesoo tamit Fatick ñi ngi wax ni yeneen diiwaan euh, ci Sénégal lu toll ci juróom dinañ fexe ba ñu mën a jot euh, ci branchement sociaux yooyu euh, dañuy dem ba foofee ca Fatick Aminata Goudia bi la ñu fay fekk ji ak Abdou Karim Bey li nag mën nañu wax ni solution la ci jafe-jafe jot ci ndox mu sell te neex ci dëkku àll yi lu tolloog juróomi junniy branchement sociaux nag ñu ne daañu ko def ci biir région bu Fatick loolu nag aju ci projet eau assainissement en milieu rural bi ñu woowee PAMER te waa di ko doxal njaboot yi nga xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw ñoom la ñu taamu ci projet bu ni mel. branchement sociaux yi mu ngi toll si fanweeri junni yi nga xamante ne jagleel nañ ko cinq régions wu Thiès Diourbel Kaolack ak Fatick euh, Kaffrine tamit si la bokk donc ñi ñuy prioriser moo di ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw dans la région de Fatick c'est 5000 ménages qui seront euh, ciblés. ay comité de ciblage nag daañu leen taxawal ngir ñoom ñu mën a saytu njaboot yi nga xam ne ñoom ñoo yellool branchement sociaux yooyu préfet bu Fatick nag di wax ni dana joxe ay digle ngir rek ñu mën a taxawal comité de ciblage yooyu le 1910 ménages yi nga xam ne ñoom noo war a bénéficier aussi branchement sociaux yi di fàttali ne branchement sociaux yi branchement la yoo xam ne dañu ko may population yi du branchement yi ñuy fay moo tax tey euh, maire yi fi teewoon ak acteurs yi waxtaan nañ si et maire yi suñu delloo même tey tey tey war nañu jël de comités yi nga xam ne ñoom nooy tànn population yi nga xam ne ñoo gën a néew doole sous préfet Tataguine Ndiop ak ñaaxaar ñoom tamit dinañ leen accompagner pour projet bi daal vraiment nu mën ko exécuter ci exécution bu gaaw 800 sociaux yu ñu fa war def yu ñu war def ci département Gossas waaye nag am na yeneen investissement yu am solo yoo xam ni projet eau assainissement en milieu rural PAMIR dana ko amal. projet bi nag pàcc yu bëri la am na ay travaux de remise à niveau am na également ay unité de chloration moo di installer ay système yoo xamante ne day dolli farñeent ci ndox bi pour que buy yegg. ci ñu koy jëfandikoo mu bañ a am benn gàllankoor ci seen wergu yaram. ne ñu nag ci projet PAMIR boobu am na ci lu tolloo ko vingt 22 milliards yoo xam ni wàllu ndox mi ci dëkku kaw yi lañ ko jagleel liñ ci namm rek moo di gën a ñoŋal accès bi ak itam qualité bi foofee ci dëkk yooyu nga xam ni lii day xaw a sori. Aminata Goudiaby fee moom lu soxal nag wàllu courant ba gën nañu ko ñoŋal euh, ci juróom-ñeenti dëkk ya nekk ca commune euh, bu euh, Gandiol mu nekk nag ak programme boo xamante ni lañ ca jublu rek mooy fexe ba askan wa mën a jote nag ci wàllu courant loolee dañu ko yàgg jooytu ay jafe yu ñu daan am la ñàkku kaaraange ñu ngi ko doon dund waaye ndongo yi ci jëmmi boppam xam ngeen ni bu lëndamee daawuñu rek mën a jàng loolu yëpp doon am ay njeexital ci seeni résultats ñi xamante nag ñoom la ñu jagleel yëf ya tey nee nañ bu ñu sañoon daal ñu gën koo yaatal ba gox yépp nag mën caa jotee Ousseynou Diop. Gandiol lu toll ci juróom-ñeent cay village mën nañu nokki jamono gile ndaxte lañ daan jooy bokk na ci wàllu courant jafe-jafe bi mu leen daan indil mooy ñàkkum sécurité ci yenn ci gox-goxaat yi waaye tamit wàllu njàng mi xale yi bu guddi jotee jàng daal leen të ba tax sax yenn ci résultat yi xawoon na tagatémbe tey jile nag juróom-ñeenti village yi ci fan yu néew seen ay làmp dina tàkk. ndax buggee jàng guddi te amul euh, am euh, làmp sa njàng defe naa du neex kon nag boo amee courant boo dee jàng guddi yaakaar naa ni doo am jafe-jafe. bu guddi jotee ku amul torse ñemi woo dem mag kilifa sax mu ñemiwul dem wax waxumal sax nga ne kale ñëwal ma yoon yónnee la. ci jamono ji nga xamante nag yenn ci village yi ñu ngi amal liggéey bi ci gox yu ne mel ñoom ñu nekk ci Daaru Salaam ñu ngay ñaan yeneen village yi itam ñu bàyyi leen xel ndaxte ñoom it dañu soxla courant bi. courant bi commencé na ñëw. am na yeneen dëkk yoo xamante ne ñu ngi ñu wër amagunu duñu ñaan yàlla yàlla dimbali ko ba yàlla may ko mu yeggale ñoo ñëpp am kuura. maire bu Gandiol ci kaddoom nee na résultat yi nga xamante ni daan na am ci wàllu njàng mi la ko daan tax mu néew bokk na ci wàllu ñàkk bu courant ñoom nag ñu ni ren jile njàng mi teemel boo jël juróom-benn fukk ak benn ya daan nañuy dem ci classe bu mag bi nag li ñu bëgg léegi mooy ñu gën ko yokk. parce que boo gisee ñu gën a renforcer euh, courant bi ci village yi ci village yi nga xam ne amuñu woon courant. yi bu guddi jotee xale yi bu ñuy jàng ñu mën a jàng bu baax a baax parce que loolu moo tax ren boo xoolee résultat Ndiobène Gandiol ci njàng mi que mën naa wax ne 62 pour cent la 62 pour cent la te loolu moo ko waral. dëkk yi nag ñu ci bari daan jooy lu jëm ci wàllu courant bi taxoon sax ñuy wàcc ci mbedd mi léegi nag ñu mën a nokki ak nguur gi programme bi nga xamante ni teg na ko ngir ñu mën a am seeni courant. mu ngoog Seynou Diop kërub boobu ñu duppee uh, bu Serigne Mbacke Gueye boo moyul nag ñu bari ci liggéeykat ya uh, daanu ñàkk seenum xëy li ko waral nag jafe moo fa am buxum luubal koppar mu toll nag ci benn milliard ñetti téeméeri million ak uh, ñaar fukk ku nag nee nañ comptable ba la ak aaw ba loolu nag gannaaw rek ab di audit boo xamante ne def nañu ko moom comptable boobu sax teg nañu ko loxo am na at ci tey teewul ñoom ña ngay dund ay jafe-jafe directeur ba di Serigne Bakke Gueye doon na janoo ak taskatu xibaar yi eh, ci micro Pape ñi nga ak Jafara Ba. maa ngi juddoo Pikine ginnaaw raay maa ngi yaroo ginnaaw raay aussi mais maa ngi jàngee métier koloban maa ngi def sama profession maa ngi def mécanique maa ngi def pièces détachées mais poids lourd mais ba si biir ba jamono yee paase ñu gis ne ñun tout le temps dañuy nekk si station de trésorerie duñu am xaalis te loolu daawuñu xelam jaxasoo peut-être kon ne dañuy auditer te bu auditer daanu mu bañ ko joxe mais finalement mu dem ba joxe yépp auditeurs yi pare génne trou un milliard trois cent vingt et quelques millions yoo xamante ni waa ji mënu ci justifier dara ñu xam ne moom ak sunu soxna bu mag dañuy déggoo dañuy waxtaan. bi ñoom bi ñu paree ci seeni enquête dañoo ñëw bureau fii jàpp ci comptable bi yóbbu fi lañ ko fekk mënate ko yóbbu ko. deux jours après xaw ma une journée après ñu ñëw jàpp si madame kër ga lañ ko fekk jàpp si ko yóbbu ko te depuis un an mi ngi nii maa ngi toog fii liggéeyu ma depuis décembre deux mille dix neuf avant may jóge Paris laa yëg affaire bi te lii maa ngi si woo président de la république Macky Sall maa ngi koy wax moom mooy président wu ñëpp ñun ci moom la ñuy xool. mangook ñu àddu ci leneen muy dak bu kër Momar Sarr ak bu kër Samba Kane euh, ca sang ak Sangalkam léegi tey nag ñu daal di tàmbali euh, liggéey bi dak yooyu nag jàpp leen ni euh, li ko tax a jug nag mooy gën a soxal wàllug mbay mi ndax doon na lu am solo coordonnateur national bu Prodac nag nee na loolee bu sottee sax dina tax ndaw ñi nga xamante ne nag dañu daan génn réew mi di wuti bitim réew mën a wàññiku bu baax a baax Pape nduur Ndour koy wax ñu teewlu ko ak Abdoulaye Abdoulaye xoolee réussir nañu relancer le DAC de Kër Momar Sarr boo xam ne tey soo fa demee lépp pare na yaakaar naa inauguration rek moo ci des ak commencer activité de production yi tey soo demee Kër Samba Kane démarré nañ ko depuis le début du mais de janvier 2020 tey soo fa demee am na ay avances yu fa am am ne am na ay retards yu fa amoon. maintenant euh, jàpp nañu ne DAC boobu fii euh, ñeenti weer jàpp juróomi weer incha allah njott nañu ne dina pare. soo demee Sangalkam malgré péripéties yi nga xam ne gis nañ ko fa difficultés yi nga xam ne amoon nañ ko tey soo fa demee gis nañ activités yi démarré nañu te jot nañu en tout cas suñu partenaire bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yaakaar naa fi ak juróom-benn weer wax nañu ne peut-être dag boobu dina pare jàpp nañu ne ci wàllu mbëkk mi am na benn wàll boo xam ne problème mu emploi moom moo ko waral donc njott nañu ne incha allah domaine agricole communautaire yi su paree donc mel ni nga xam ne moom la ñu bëggoon mu mel am na ay jeunes yu bëree bëri bëri yoo xam ne mun nañu am ay solution fii ci réew mi mun fi liggéey waxoon nañ ko ci euh, ponk yi ay weeri weeri ngi nii nag ñu ubbi woon euh, l'enquête ba fële ca Denver ca États-Unis euh, gannaaw lakk bu metti boobu nga xamante ni ak njaboot dañu caa ñàkk seen bakkan njabootuk lëmb fekk baax nag fii ci Sénégal tey police def na liggéeyam joxtu nañu ne ñaar ñoo nekk ca gannaaw ay xale lañu ndax kenn ki mi ngi am fukki at ak juróom-benn ka ca des fukki at ak juróom nee nañ nag ñoom ñoo nekk ca gannaaw lakk googe police bu Denver. gouverneur nag moo doon janoo ak taskatu xibaar yi eh, di fësal lu ni mel eh, njiit la di Paul Pazen nag eh, gannaaw njariñ boobu mu doon janoo ak taskatu xabaar yi wax na nag la nga xamante ne nii moom la ñu rek kon ñaawe njort ci ñaar ñooñu muy nag daal di mànkoo maanaam booloo def ñaawteef lu ci mel ni faat bakkan googe maanaam lakk rek kër ba ab njabootu lëng ñàkk ci seen bakkan yegg si nañu ci xët yu njëkk yu yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf waa njoleen di famille jol gi faatu woon ci lakk ca Denver ga ca Amérique ña taaloon kër ga l'observateur nee nañu jàpp nañu leen ubbil yéenekaay bi journal bi mi ngi ñuy fàttali ni guddik talaata ñeenti fan jàpp àllarba juróomi fan ci weeru août 2020 ca la lakk ga amee woon doonoon lakk gu ba famille jol ñàkkoon ci juróomi nit Jibi Jol Adja Salimata Jol Khadija Jol Kumba Jol ak benn parentel bu ñu naan bébé awa ñoom ñëpp ca lakk ga la seen bakkan des ña jafaloon sawara na leen loxo ñetti nit lañu di ay gone yu ci fukkeet ak juróom jàpp juróom-benn mooy Sarr secrétaire d'état chargé des sénégalais de l'extérieur di ñu wax ci biir l'observateur nañuy defoon jëf ju ñaaw joojee kilifa yi danañu leen teg daan yi ñu yellool vox populi nañu police bu Denver teg na loxo ñetti ndaw yi taaloon kër Jibi Jol tuuma yi ñu gàll ci seenu ndodd bari na faat bakkan a nga ca cambriolage nga ca am na it ndaw soo xam ne yéenekaay bi nee nañu jàpp nañu ko waaye ba léegi leeralaguñu ana lan moo tax ñu jàpp ko Boubacar wax ji waxoon ba tax ñu teg ko loxo moom jiital ONC Horizon Sans Frontières journal la yéenekaay xëy na ko ci ay bind nañu ko defali compte ci mbiri Boubacar Seye ak li waral coow li mu di téeméeri milliards ak fukk ak juróom-ñett yi ñu ne waa union européenne jébbal na ko Sénégal ngir mu xeex ci tukki bu jaarul ci yoon di immigration clandestine le quotidien nañu président Macky wàll seen ci wax ji bay sàkku ab rapport bu jëm ci projet yi ñu financé ak ci xëyum ndaw ñi li mu bëgg mu leer ci boppam moo di financement gi ñu ne union européenne da ko financé na ñu jëlee ca barab ba dinañu leen taxaw lijjanti seeni mbir ni mu leen ko diggee woon atum 2017 ko nañu boy kees di Yankhoba Diattara ministre économie numérique ak télécommunication la ko président Macky wax démb ca ndajam conseil des ministres ndax moom Yankhoba Diattara dafa diggoon askanu Mbour 4 gi doon ñaxtu ne seeni tawat dinaa ko yeggee président de la république yéenekaay bi nañu ni mu leen ko diggee woon noonee la ko defee ñoo di ñi nga xam ne commission bi ñu sampoon jotoon na leen recensé soleil national nañu leneen a ngi lool it moom président national santaane na ko démb ca ndajam conseil des ministres mu di texte yi jëm ci convention de la presse ñu jëmmal ko boole ko jëfe lépp sursoi nañu mbir a ngi ci kanam moo xam ne fu muy jaar ba jëfe ko moom président Macky Sall dana ko ëlëm lool mu di ndàmpaay di prime de motivation gi ñu warloo ak fajkat yi ci jamonoy jëlee ci jamono joojee yéenekaay bi nee nañu coronavirus bi ak i loraangeem ñoo ngi gën di jàllaañoo ci réew mi ñi mbas mi faat ci Sénégal léegi lim romb na juróom-benni téeméer ndax démb rek am na yeneen yu faatu ci coronavirus bi boole ñaari téeméeri ka coronavirus ak yu yees ñu enregistré enquête dina nañu vaccin di ñàkk yi ñu ne ñoo man ci mbas mi dara bala ci néew ji doole yi di jot danañu wax lu set wecc ndax borom doole yi ñoo ci ngar dajjoo nañu ko waa union européenne sax nu ñu mën a def ba am ci vaccin yi loolee da leen a ëlëm gudd yu ñu toll te ginnaaw giléem bu tëwee ay naar jommali pël moo tax réewi afrique yi kenn waxaalewu leen bu leen ci covax wala vaccin chinois yi ba vaccin yi ñuy defaree ci Russie génnewul kon danañu yeex a ñàkku l'observateur xibaar ñu ci xëtam mu njëkk ne coronavirus bi ak ni mu mel ci réew mi fan yi ak li mu fiy faat tax na kilifa yi rawatina kilifa diine yi jël bopp ba ci président de la république sax journal groupe futur ko naan ñu matuwaay yu mu jër ak na fan yi di ñëw coow lu rëy nar na ko topp moom président Macky Sall ñetti milliards yi mu joxe woon ne woon nañu ci jàppale ñi nekk ci culture bi ci jamonoy mbas mi journal bi nee nañu gaañi séddale nañu xaalis ba ba séddaale fecckat ya waaye la ciy ñuul moo di fecckat yi ci réew mi ba ñu séddoo kenn ku nekk ci ñoom 18000 francs nga am jërëjëf euh, Mamadou Mohamed Ndiaye sant nañu la gërëm la bu baax a baax mbokk yi yéen ñoo ñit euh, fare woon ci machine bi cant ak ngërëm ñeen na leen rédaction bi dana dellusiwaat ci yeneen jotaayu xibaar balaa boobu euh, Mamadou Ndiaye moom noppi na jigéenam ma ngi koy waaja feelu <laughs> uh-huh. Mary Bey gis naa ko muy temp ndànk di ñëw di la nuyu bu baax a baax Mary Bey di leen jox seen wàccuwaay ñoo ngi lay fay soxna Fatkine di nuyu téléspectateurs yi internautes yi comme ni nga ko waxee man ak mairie ñi ñuy taxaw nii boo jeexalee ñu ñëw yeggali ak euh, internautes yeeg euh, téléspectateurs yi ngir euh, jukkil leen li gën a fës ci internet bi. ma ngoog jërëjëf gannaaw bàkk bi lay doon mbokk yi dig daje ci yeneen jotaayu xibaar.